lu def suñu mënin moom mooy campagne bi nga xam ne depuis 2018 ñu ngi ko entamé mu tudd campagne un élève un sac ku ne xam ne ouverture yi bu jibsee rek waajur yi dañuy jaaxle ndax fourniture nu mu seeree ci loolu nag lañ amoon idée di def campagne un élève un sac jàppale suñu waajur yi suñu rakk yi nga xam ne seen doole seen doole demeewul noonu ci ouverture yi di leen jox sac di leen jox kaye bic lépp luñ soxla euh, ci ren jii nag pour la première fois nit dugal ci loxoom muy nekk koo xam ne politicien bu mag la mag la si man déjà mais tamit politicien bu responsable la ici à Fatick ku si nekk boo déggee Diène juuf rek doo ko dégg ci lu ñàkk fayda wala dara ci dimbale askan bi Diène juuf boo ko déggee di nga ko dégg Fatick dégg ko Njuwaar dégg ko Diouroup Mbella Kajaw Fimela partout Diène il est le Diène de partout léegi ñun moins de vingt jours lañ ko waxoon pour mu doon suñ parrain mais il n'a ménagé aucun effort dafa accepté ñëw bokk ko ak ñun Dakar démb fii la nekk Dakar suba ba guddi pour jënd bagages yi vraiment vraiment mu mu jàppale ñu ci bu baax a baax a baax pour la première expérience bi nga xam ne ñu am parrain moom rëccuwuñ ko rëccuwuñ ko xam naa ne le travail va continuer comme nu ma la ko waxee parole aux sisters nekkul ci jàng kese leneen ak leneen lay yëngu. Diène Diouf chargé de mission du ministre des sports euh, am mbégte bu baax ci bés bi nga xam ne tey moom lañ ma tuddee ma nekk ci parrain. ñi ma ko tuddee aussi nekk une association bu ñu tuddee la parole au sisters ñu am un projet de développement boo xam ne dafay articuler sur plusieurs volets mais bi nga xam ne tey moom moo ñu dajale dafa nekk un programme bu ñuy wooyee un élève un sac ñu sollicité woon ma ci yàggoon ci nag liggéey yàgg ci góor gu ci dimbali ay doomu Fatick ñun aussi ñu nekk ay acteurs de développement nekk ay politique di yëngu dans le système éducatif kon je crois que su loolu amee ñoom ñu tànn ñu parrainé ñu bés bu mel nii ñun mënuñ def lu dul jël ko ñu accepté ko nag avec fierté accepté ko avec honneur parce que Fatick dafa nekk un levier boo xam ne tey dafa am njëriñ ci réew mi kon pour dëkk bi dox il faut que aussi éducation bi dox mais dañu sentir ne ci biir éducation boobu dafay am des fois ay jafe-jafe yu tax élèves yi ni ñu war a jànge duñ ko mën a jànge ñenn ñi dañuy dem ba génn école ndax ay problème ñoom ñu jàpp ne nag mënuñu régler lépp mais il pourrait y un début de solution mooy que ñu xool ñi nga xam ne dañuy dund des fois benn injustice boo xam ne c'est pas lié à leur propre personne dañuy dund des fois des inégalités à travers l'école ñoom ñu indi ci ay saafara saafara bi mooy ñu fexe ba ñenn ñi nga xam ne loxo jotul seen ginnaaw ñu mën a fexe bi ku ci nekk ci moom mu am fourniture scolaire. loolu nag ay xale suñ ko xalaatee dañu jàpp ne ñoom xam nañ fi ñuy teg seen tànk c'est des jeunes ambitieux c'est des jeunes qui ont à cœur le développement du Sénégal mais particulièrement donc le développement de Fatick ñu ñëw nag fekk si leen ci bés boobu jàppale leen ci ndax ñoom yàgg nañ ko def comme ni ma ko waxee sànq mais pour cette année la particularité mooy nous avons voulu prendre en charge en tout cas la majorité des frais de l'organisation mais c'était aussi une façon de les tendre la mais pour que collaboration boobu mën a continuer parce que politique dafay soxla ñi nga xam ne c'est des acteurs de développement mais les acteurs de développement aussi en retour ont besoin de la politique donc développement soo ci génnee politique kon politique nekkatu fa muy ñaari affaire yoo xam ne man dama jàpp ne dañ ko war a tënk ànd ci dox ci pour que ñun ñu gis suñu bopp ñoom ñu mënti gis seen bopp mais Fatick ñu gis seen bopp mais remercier leen aussi ci clairvoyance bi ñu am parce que nit di nga nekk ci dëkk te doo xam li nga war a def mais ñoom elles ont compris très tôt nit da ngay góorlu ci sa dëkk elles ont compris très tôt aussi béy ci sa wewu tànk mais elles ont voulu aussi magnifier l'acte que les autres les autres personnes font à travers ce qu'on une pédagogie par exemple pédagogie par exemple nag mooy nga fay naar bi xorom si nga won aussi ki ngay dimbale yoon bi parce que xale yi dimbale tey ay xale lañ naam mais tey yëg nañ ne am na lu ñu leen defal loo xam ne dina tax suba suñu demee école ñu gën a góorlu mais xale yooyu aussi ñaax nañ leen ñaax boo xam ne suba dañu war a am taxawaay bi nga xam ne moom la xale yu jigéen yi am donc ñu leen di sant di leen gërëm mais di leen aussi wax ne rek ñu gën a góorlu parce que àdduna moom dara amu fi lu dul liggéey elles partout comme ni ñu ko waxee sànq ñu ngi ci reboisement ñu ngi ci école ñu ngi xeex aussi yenn jafe yi nga xam ne tey mu ngi am ci école c'est pour que rek ngeen xam ne ñoom xam nañ ne développement dëkk jàng moom moo ko yor kon su jàng bi doxee dëkk bi dox mais su jàng bi doxul aussi dëkk bi sooxee remercier aussi la présidente qui vraiment a ménagé aucun effort pour que affaire bi réussir mais à travers la présidente aussi ñu remercier ñëpp ñi nga xam ne tey dañu bokk ci association bi ñu fi nekk ak ñu fi nekkul parce que nag mënoon nañ gise neneen wala ñu sonal ñu mais malheureusement heureusement du mooy loolu yëpp amul dañ bàyyi avec la conscience tranquille bàyyi ñu ak suñu sago wax ñu aussi li nga xam ne tey moom loolu la ñu bëgg ñu fekk si leen ci loolu en tout cas tout le monde